sëriñ Abdoulaye Khady Diouf sëriñ Abdoulaye Khady Diouf mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1918 ci dëkk bii nag waajuram goroon nag di Daaru Diouf ci dëkk boobu nag la feeñe jamono nag ci atum 1918 waajuram nag sëriñ Mor Diouf Diaty nag mi ngi ko sanc nag ci atum 1900 ci atum 1918 nag la doom ji nag di sëriñ Abdoulaye Diouf nag feeñe jamono ci dëkk boobu nag di Daaru Diouf muy doomu soxna Khady Thioune ak sëriñ Mor Diouf Diaty moom sëriñ Abdoulaye Diouf nag bi feeñee jamono waajuram nag sëriñ Mor Diouf Diaty mi ngi ko waaye nag doomu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima di sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi mu bokk nag ci turandooy nag borom dër bi muy doomu soxna Xadi Cuun ak sëriñ Moor Juuf Jati moom sëriñ Abdullahi Juuf nag am na nag ñu mu bokkal soxna Xadi Cuun nag ak sëriñ Moor Juuf Jati ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdu Xaadir Juufa ibnu soxna Xadi Cuun ibnu sëriñ Moor Juuf Jati sëriñ Abdu Samad Juufa ibnu soxna Xadi Cuun ibnu sëriñ Moor Juuf Jati soxna Musli Juufa bintu soxna Xadi Cuun bintu sëriñ Moor Juuf Jati soxna Moomi Juufa bintu soxna xadi cuun bintu sëriñ moor juuf jatti soxna safiyatu juufa bintu soxna xadi cuun bintu sëriñ moor juuf jatti soxna ummi juufa bintu soxna xadi cuun bintu sëriñ moor juuf jatti ak moom nag sëriñ abdullahi juufa ibnu soxna xadi cuun ibnu sëriñ moor juuf jati juróom benn nag la bokkal waajuru góor nag ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróom ñaar laataa ñuy xuus nag ci turóondoow sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi ñu wax leen nag ñi mu bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndayam ji nag di sëriñ abdu xaadir juufa bàyyiwu fi nag ak njaboota doomu ndayam jii tamit di sëriñ Abdou Samad Diouf bàyyiwu fi nag ak njaboota doomu ndayam jii nag di soxna Musli Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Moustapha Thioune nag lañ ko jébbaloon moo sëriñ Moustapha Thioune nag benn bant lañ am muy soxna maam Awa Thioune doomu ndayam jii nag di soxna Moomi Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Saliou Ndiaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Saliou Ndiaye itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Sidi Ndiaye ak soxna maam Ndiaye doomu ndayam jii di soxna Sophie Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Aliou Niang nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Aliou Niang nag benn bant lañ am muy ku ñuy wax soxna Jobbe Niang doomu ndayam ji nag di soxna ummi juufa bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Sarr nag lañ ko jébbaloon nag ca Pout mu am fa nag benn bant bu ñuy wax nag soxna Nogay Sarr njaboot yii nag la bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen ñu góor ñi nag samp ñu kër ñu jigéen ñi nag kër yi ñu dem njaboot yañ fa am ñooy jar baati nag turandoo borom dër bi moom sëriñ Abdoulahi Diouf nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram nag ku ñu wax sëriñ Ibra Gay jëmm Diouf nag la ko jébbaloon ci dëkk bu ñuy wax nag daaru mbooy ci dëkk boobu nag di daaru mbooy nag ci loxoy sëriñ ibra gay jëmm juuf nag la jàngi alxuraanul karim nag ba mokkal ko jàngitim nag xam-xam ci loxoy sëriñ ibra gay jëmm juuf mii ginnaaw bi nag la jóge nag ci dëkk boobu nag di daaru mbooy delsi waat nag ci loxoy waajuram nag ci dëkk bii nag di daaru juuf ci atum 1938 la ko waajuram nag jël jébbal ko maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ abdoulaye juuf mii nag tarbiyewu fa comme nag ni ko ay doomi baayam yépp nag defe moom mii itam nag di sëriñ abdoulaye juuf la waajuram na sëriñ Mor Diouf joti nag mujjee jël nag ci ay doomam jébbal ko maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru loolu nag ci atum 1938 la ci atum 1939 nag ca déwén sa la fi waajuram nag bàyyi ko di sëriñ Mor Diouf jati ku ñuy wax nag sëriñ Daaru Seynabou Diouf nag toog nag toogaayu waajuram moom sëriñ Abdoulaye Diouf nag mu wéy des nag ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daar ba ci atum 1943 rakku ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim nag di borom daaru bàyyi koo fi sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru sëriñ Abdoulaye Diouf mi nag wéyitam nag des na ci loxoy sëriñ Modou Awa ba ci Awa Balla Mbacke nag gërëm ko joxaat ko ndigal itam mu del siwaat nag ci dëkk bi mu feeñe jamono nag di daaru Diouf ci loxoy magam nag sëriñ daaru Seynabou Diouf ginnaaw bu mu ñëwee daaru Diouf nag ci loxoy magam nag sëriñ daaru Seynabou Diouf magam itam nag sëriñ daaru Seynabou Diouf da koo jébbal nag soxna suñuy wax nag soxna Xadi Cuun mook soxna Xadi Cuun yi nag am njabootam ñu mën cee ràññe nag sëriñ Cheikh Daaru Diouf Bikim Faye nag waajuram nag sëriñ Mor Diouf Jati ak ku ñuy wax nag maam Thierno Diouf ak ku ñuy wax nag soxna Moomi Diouf ak ñeneen ñoo xam ne nag soxna Xadi Cuun mii nag moo leen meññi woon waaye amuñu nag ay tur magam itam nag sëriñ Daaru Saynabu Diouf itam jël ko nag yóbbu ko nag ci dëkk bu mu sancoon bu ñuy wax Daaru Salaam Diouf loolu nag ci atum 1955 la sëriñ Abdoulaye Diouf nag nekk fa ci ndigalul magam nag sëriñ Daaru Saynabu Diouf magam itam nag sëriñ Daaru Saynabu Diouf itam jébbalaatoon na ko fa nag beneen beneen soxna bu ñuy wax nag soxna Fatima yi Diouf mook soxna Fatima yi Diouf itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag Serigne Cheikh Awa Balla Diouf ak soxna Mame Bousso Diouf mu wéeyu denk nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam Diouf ba ci atum 1965 magam itam nag Serigne Daaru Seynabu Diouf itam joxaat ko ndigal nag mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag Daaru Mbooy di dëkk boo xam ne itam nag waajuram Serigne Mor Diouf Jati itam nag moo ko sanc dëkk boobu nag la nekk nag ci atum 1965 ba nim génnee àdduna nag ci atum 1970 Idrissa bu mu eggee nag ci dëkk boobu nag di daaru mbooy fekk fa itam nag ko jàngaloon alxuraanul karim di sëriñ Ibra Gaye jëmm juuf mi sëriñ Ibra nag moo ko fa dogal nag suuf su muy bayee dogal ko fa nag kër gu mën a dëkk dogal ko fa itam nag kër goo xam ne nii fa lay def nag daaray alxuraanul karim ba tax na nag ñu takkoo takkoo takkoo takku sëriñ Abdoulaye Diouf mii nag jàngal na leen alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di daaru mbooy bi mu eggee itam nag sëriñ Ibra Gaye jëmm juuf mi itam na ko fa soxna muy ku Cuun di doomu nijaayam mook soxna Kóora Coon nag benn bant lañ am muy soxna maam bu sa Juuf soxna maam bu sa Juuf mi nag moo nekk caatum sëriñ Abdoulaye Juuf mi mu wéy des nag ci tundu soowu jant woowu nekk itam nag ku yéemee yéemee ku njaboot gi itam nag bàyyi xel ku taalibe itam nag bàyyi xel ba tax na daal lu takkoo takkoo takkoo takku def na ko nag ci dëkk boobu nag di daaru mbooy mu woon itam nag borom barke ndax daana bay itam nag yor itam alal mu nekkoon itam nag borom xijaaba ndax itam nag barkeb sëriñ Moor Juuf Jate itam nag wuy na ko ak maam Thierno nag Serigne Modou Awa Balla Mbacke ak magam nag Serigne Darou Seynabou Diouf ba tax na itim nit itim nag daanu jóge nag ci tundu soowu jant woowu li ko dale nag tiwaawoon nag ba jogo ñëw nag ci moom di ko diis nag ay soxla soxla itim nag suñ ko masaa diis itim ak du àdduna la wala soxla yoo xam ne itim nag soxlay biir la lépp itim nag doomu Serigne Mor Diouf jati bii nag ak soxna Xadi Cuun itim nag daana ko saafara ndax barke nag bu ko suñ boroom may mu nekkoon itim nag boroomum ñaan koo xam ne itim nag lépp ko danga ci jot moo xam na ci baatin moom sëriñ Abdoulaye Khady Diouf nag mu yoroon nag jikko moom nga yor doon taxawaay itam taxawaay boo xam ne nii képp koo xam ne daal yaa ngi si nag ngir njariñul askan wi itam nag moom nga yoree mu nekkoon daal taxawaay bu am solo boo xam ne daal diirub juróom fukki at yu teg nag yi mu dund képp koo xam ne daal xam nga doomu sëriñ Mor Diouf Diatty bi daal naw nga ko ci jikkoo taxawaay nag ak kaan ci dundam nag nekkoon na nag ku ragal suñu boroom ragal gim ragaloon suñu boroom nag lépp loo xam ne daal suñu boroom nag daana yooyu daal suñu borom itam nag daana ko tere itam nag bawoon na ko jikko jooju nag mu yoroon itam nag tax na ñu bari itam nag naw ko ci moom nag ku daa wéttalikoo nag suñ saa boo xam ne itam nag wéetul lépp loo xam ne itam nag daana ko def daana ci bàyyi xel nag suñ boroom nekkoon na itam nag ku ragal suñu boroom nag ci ñi nga xam ne daal dund nañoo moom ci taxawaay boo xam ne daal gis taxawaay bu mel noonu itam nag la amoon ci sëriñ tuubaa seexul xaddiim ñi ko xamoon itam nag te moom xamoon nañ ne daal bëgg gim bëgg Serigne Touba itam lu yéeme woon la daal ci turandoo borom dër bi ba wax nañ ne itam nag turu ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim daw ci jaar saa bu masaa wax nag ko baax ka da ngay xam ne Seexul Xaddim nag moo tax nag muy wax ndax nag ak worma nag gu mu am nag ci moom noonu itam nag ni la meloon nag ci ay kilifaam rawatina nag Serigne Daaru Saynabu cër bu yaatoo yaatu yaatu nag la ko joxoon di ko xoole nag seen waajur wa Serigne Mor Diouf Jati loo xam ne daal Serigne Daaru Saynabu nag daana ko tere dawoo ci gis nag Serigne Abdoulaye Diouf Tidiane itam nag daana ko digle sëriñ Abdoulaye Diouf mi itam ca kanam itam la laa nekk wor ma nag ku mu amoon nag ci magam sëriñ Daaru Seynabou Diouf wax nañ ne itam nag nekkoon nag ku silwiise ku setoon ku bëggoon itam nag lu set ku daa sàmm itam nag ku laab te itam nag daa ko digle nekkoon ca itam nag di ko def ñi mu yar ñëpp itam saa boo tuddee nag lu set wala lu baax seen xel nag sëriñ Abdoulaye juuf mi nag lay dem bëggoon lu set ak bëggoon lu baax loolu itam nag mu daa def ñi ko miinoon ñëpp itam nag wax nañ li ëppoon nag ci ak colom yëre yu weex tàll itam nag la daa doon na waaye ku nangu woon itam nag may suñ boroom yi wërsëg itam nag ku ko amoon la ab baykat nag la woon te lim daa bay itam nag suñ boroom itam nag daana ko wuy si ci di ko meññi tax na wërsëg bi mu amoon itam nag daana ko sàmm itam nag xam ne ginnaaw yàlla itam nag waat ko nag ci askan wi rek ñoom ñoo ko moom ba tax na itam nag lépp lu masa am bu ko delloo ci jaam ñooñu itam dana xam ne daal àdduna nag du dëkkuwaay te ëllëg itam nag yowmal xiyaam nit ku ne itam nag war nga koo fàggu nekkoon na itam nag ku tabe lépp loo xam ne daal mas na koo yor saa bu nit ñëwee nag soxla ko mu jox la ko soxla te fajuwul moo tax itam nag du këram du lenn loo xam ne nii daal dëkkuwaayam itam boo ñëwee nag naw ko ndax lépp lum daa am itam nag ci askan wi ak taalibéy seexul xaddim nag la ko daa delloo mën a liggéeyal nag waajuram sëriñ Mor Juuf Jati ak nag seexul xaddim mi tax nag ñëpp nag topp ko wax nañ ne itam nag bu masaa di tukki dana sol itam yére yu bare bari ngir bu demee itam gis koo xam ne nii wul nag ay yére mu summi nag lenn nag ci yére yim soloon jox ko lépp loo xam ne daal amoon na ko delloo woon na ko nag ci askan wi tabe googu itam nag eggoon na ci lum am itam nag dana ko def itam nag ci aw ñam joxe ko xam ne daal askan wi nit mën na cee liggéeyal suñ boroom ba am nag li nga bëgg ci ngërëmul suñ boroom xeetu teraanga yi nag rawatina itam nag kafe daana ko defar itam ngir nit ñi itam nag di ko xéewloo këram itam nag sëlébéw yoon nag la woon ngir ñi nga xam ne ni daal dañoo yittewoo luñ mën a dunde xamoon nañ ne daal buñ demee kër sëriñ Abdoulaye Khady loolu nag dana saafarawu mu nekkoon itam nag ko am kersa ba tax na nag lépp loo xam ne ni mas nga ko ko diis yaag moom dong nag yéen a koy yëg kersaam itam nag eggoon na ci saa bu la gisee itam nag du siggi xool ndax kersa itam nag dafa bokk bokk ci màndarga yi nga xam ne daal suñ boroom dana ko naw nag ci ab jullit ba tax na itim nag ñi mu yar lépp loo xam ne daal dafa aju nag ci wàllu ñàkk kersa daana leen ko tere te moom itim na soo royee ci moom itim nag doo ko a am wala jikko jooju itim nag doo ko mën a yoree kon daal doomu sëriñ Mor Diouf jati ak soxna Xadi Cuun jàmbaar daal la woon nag ci lislaam ku sàmmoon itim nag la diineem nag waaye itim nag ku amoon itim nag ab taxawaay la ci askan wi nga xam ne daal ñoom la dundandool rawatina nag tund woowu nañ ko magam ji nag wax sëriñ Abdou Mboy Juufa seede na nag ginaaw nag bu rakkam ji nag génnee àdduna mu wax ne daal gént na nag génn guddi seen waajur wa nag sëriñ Moor Juuf Jati nag nekk nag ci kaw garab mbooleem doomam yi nag nekk nag ci suufa seen waajur wa nag sëriñ Moor Juuf nag di leen wax ne damaa bëgg na ngeen ñëw fekk si ma nag ci kaw waaye ñoom ñëpp nag kenn munta dem mennum doomam ji nag di sëriñ Abdoulaye Xadi moo dem nag ci kaw nag fekki ko lii daal magam nag sëriñ Abdou Mboy Juuf nag seede na ko ci ginnaaw nag bu rakkam ji nag di sëriñ Abdoulaye Xadi na génnee àdduna ci ak gént nag gum gént na ko nag seen waajur wa mu nekk ci kaw garab nag di leen woo waaye benn doomam nag munu ko faa fekki lu dul doomam ji nag di sëriñ Abdoulaye Khady Diouf loola itam nag day wane ne ku amoon ab cër la nag ci waajuram sëriñ Mor Diouf jati magam itam nag sëriñ Daaru Seynabu Diouf mas na yónni nag rakkam ji di sëriñ Abdoulaye Khady Diouf ci dëkk bu ñuy wax nag leew na boole koog nag ab taalibeem nag bu ñuy wax sëriñ sang sàmb mu war aw fas nag di dem nag ci dëkk boobu nag di leew na ci yónneen boobu ko magam nag sëriñ Daaru Seynabu Diouf nag yónni bi mu demee nag bay wàññeeku la yàlla si taw nag bu baree baree bari sëriñ Abdoulaye Khady Diouf nag di wax nag ki mu àndal sëriñ sang sàmb nañu xuus nag ci biir taw bi nag te dem sëriñ na ne ci yónneen boobu nag ñu demoon taw la taw bay bari bari dara laalu leen ci nag ñoom ñett ñooñu muy fas wi sëriñ Abdoulaye Diouf moom nag sëriñ sang sàmb moom loo xam ne daal suñ boroom itam moom moom sëriñ Abdoulaye moom sëriñ Abdoulaye Khady Diouf itam na nag sëriñ sang sàmb mi lii xew nag ci suñu yoon wi bu ko nettali mukk nag fii ak yaa may koy gis sëriñ sang sàmb mii nag bi sëriñ Abdoulaye Khady Diouf nag génnee àdduna lay doog a nettali nag lii mu moom kon daal day wane na nag sëriñ Abdoulaye Khady Diouf ku amoon nag ak may la waaye itam nag ku daa nëbb nag ak mayam la ndax kerse giñ leen waxoon ne nag ne ku ko am la lii daal ak laneen nag lu ñu waxul day wane ne daal kii nag sëriñ Mor Diouf jatti nag fayee doomu sëriñ Touba Seexul Xadim bii ñuy wax nag sëriñ Abdoulaye Mbàkke boroom dër bi boroom la woon waaye boroom may la woon boroomi kerse itam nag la woon waaye ku donn waajuróom nag sëriñ Mor Diouf magam la ci loolu daal nag la sax nekk ci nag ci ndigalul ay magam ci dëkk yu wuute yi nga xam ne daal jaar na ci nag ci ak dundam muy lu mel ne dëkk bi mu jamono nag di daaru juuf dëkk bii ko waajuróom yóbbu woon nag mu ritoo fa di daarul muxti dëkk bii mu jànge alxuraan nag di daaru mbooy dëkk bii ko magam nag sëriñ daaru saynabu juuf nag yóbbu woon di daaru salaam juufa ba nim delsiwaatee jamono nag ci dëkk bii mu nekkoon nag di daaru mbooy ba niñ ko xëy nag jébbalee boroomam ci dëkk bii nag mu feeñe jamono nag di daaru juufa ci taxawaayu bëgg sëriñ tuubaa jox cëram ay magam nag di liggéey di tundu sowu jant woowu ci la sax nag ba nim génnee àdduna ci atum 1970 mu wéy des ci dëkk boobu nag di daaru mbooy di yar di jàng ak itam nag di jàngale di bàyyi itam nag di tarbiya ak mbooloo mi nga xam ne ni daal ñoo ko yaakaar nag ngir waajuram sëriñ Mor Diouf Diatty yaakaar ko itam nag ngir sëriñ Touba Seexul Xadiim tarixam muridisme bi mu bokk laataa muy génn àdduna itam am na ñu bare bare bare bare bare nag ñu mu jaxasooloon ci ay magam ak tundu sowu jant woowu ñu mën ràññee nag magam nag sëriñ daaru Seynabou Diouf ku jaxasoo woo nag rakkam ji nag di sëriñ Abdoulaye Diouf la moom fi mu nag ni la meloon nag magam sëriñ Abdou Karim Diouf ni la meloon nag rakkam nag sëriñ Mbacke Sidi Diouf ñoom ñaari tim nag dañoo jaxasoo woon ni la meloon nag doomu baayam nag sëriñ Maam Thierno Faty Diagne Diouf ni la meloon nag ku ñuy wax sëriñ a Sarr jaxasoo googu itam nag ni la meloon nag ku ñuy wax sëriñ Abdou Karim Thioune sëriñ Abdou Karim Thioune mii itam nag mooy nijaayam moog waajuram wu jigéen nag ñoo bokk nag yenn waajur wu góor ci jàmbaari sëriñ Mor Diouf Diaté itam nag la bokkoon la ak jarbaatam bi di sëriñ Abdoulaye Diouf mu nekk itam nag ku jaxasoo nag sëriñ Ibra Gaye jëmu Diouf mi moo ko jàngal alxuraanul karim ginnaaw bu mu del si waatee itam nag ci dëkk boobu mu jàngee alxuraanul karim itam nag di daaru mbooy moo ko fa dogalaat kër mayaat ko soxna jox ko nag fu mu def daara dogal ko fa itam nag ay tool itam nag yu mën a baye di fa jaamu suñ boroom mu nekk nag ku jaxasoo woon nag ku ñu wax sëriñ Gora Sarr sëriñ Gora Sarr mi nag doomu ndayam la woon bi mu tolloo nag ci génn àdduna sëriñ Gora Sarr mi nag moo ko taxawu itam nag ba mu génn àdduna ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam doomu ndeyam ji nag di sëriñ Gora Sarr moo yoroon itam nag ak njabootam yar leen nag ba ñu màgg wala leen itam nag ci ak njabootam itam nag moo leen yar itam nag ba ñu màgg jaxasoo woon ak moom nag la woon baree baree bari nag mook sëriñ Gora Sarr mi nag jaar nañ fa ku jaxasoo woon ak sëriñ Masamba Diouf la ci dëkk bu ñuy wax nag Ndioufène ku jaxasoo woon ak sëriñ Abdou Mboy Diouf la nekkoon itam nag doomu baayam ku jaxasoo woon ak sëriñ Cheikh Ndiaye la ci dëkk bu ñuy wax nag Daaru Gay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu doomu sëriñ moo Diouf jati bii nag leen ba tax na nag tur yu baree baree bare nag daanañ ko ko wooye di ko wooye tim nag ay turandoom am na ay turandoom nag yu ñuy wooye abdullahi am na ay turandoom nag yu ñuy wooye nag abdullahi am na ay turandoom nag yu ñuy wooye abdullahi am na nag ay turandoom yi yu ñuy wooye nag abdusalaam dëkk boobu mu newoon nag di daaru salaam mu wéy des nag ci dëkk boobu nag di daaru mbooy ba nim génnee àdduna nag ci atum mille neuf cent soixante-dix moom doomu sëriñ moor juuf atum 1390 nag ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru gàmm ci atum 1390 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 3 juin ci atum 1970 mercredi 3 juin 1970 ci dëkk boobu mu nekkoon nag di daaru mbooy ñu yëgal ko nag ki toogoon toogaayu waajuram di sëriñ daaru bu Juuf magam nag sëriñ daaru Saynabu Juuf itam nag moo sàkku ñu indil ko rakkam jooju nag dëkk boobu nag di daaru Juuf ñu jële ko nag ci dëkk bi nag di daaru mbooy indi ko itam nag ci daaru Juuf magam sëriñ daaru Seynabou juuf nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag dëkk boobu nag di daaru Diouf soo delloo nag ci xaside gi nga xam ne daal sëtam sëriñ Koso Diouf nag defal na ko maamam nag sëriñ Abdoulaye Diouf mi ngi ñuy wax daal lu bare bare nag ci dundug maamam gi ci taxawaayu maamam kiimaan nag gu maamam doonoon dund daal gu sell goo xam ne daal maamam dund na ko la ñu sëtam bii nag di sëriñ Koso juuf nag di ñu xamal ci kàllaamay arab nag ci ay way nag yu mu def nag leel ko maamam sëriñ Abdoulaye Diouf nag di dondoo sëriñ Abdoulaye Mbacke boroom dër bi ginnaaw nag bu sëriñ Koso Diouf Diouf nag nuyoo ni lislaam nag baaxoo nag di nuyoo ci képp koo xam ne daal mi ngi lay nuyu mi ngi ñuy wax nag ci tàmbali xasida gi jaar-jaaru maamam kan mooy maamam ci ban dund daal ak ban taxawaay daal la maamam ji nag di sëriñ Abdoulaye Diouf nag amoon moom sëriñ Koso juuf nag di ñu ko xamal yàlla nag barkeem mooy jëmm ju baax nag ci ndab nag lu sell ndab lu set ci la ko suñ boroom nag di def jubluwuma nag kenn nag ci jëmm ju baax jooju nag ak jëmm nag ju sell jooju ku dul kenn nag mooy ki ñuy wax nag sëriñ Abdoulaye Khady Diouf moom ci sellaange ak jikko fa waajuram jaaroon nag fa la jaar fa waajuram tegoon tànkam itam nag fa la teg tànkam la waajuram doon def itam rek moom itam nag la doomum ji nag doon itam nag di ko def ci saa nag bu jamono neexee wala jamono itam nag naqari moom sëriñ Abdoulaye Khady nag ni mu mel nag ci ak mbaax toogul nag ba nekk mag rek doog nee mel loolu daal bi mu feeñee jamono nag moom nag la indaale ba nag ni fi bàyyi ko bi muy nekk nag tuut tànk ci la yàlla dind nag ci moom lépp nag lu aju nag ci wàllu fo wala lépp itam nag lu aju itam ci wàllu caaxaan bépp médaille boo xam ne daal mooy jikkoon ak ju rafet saa boo gisee daal doomu soxna Xadi Cuun bi da xam ne daal waajuróom na sëriñ Moor Juuf Jati nag moo ko meññi comme daal ne bindukati arab yu baree bari di wax ne gaynde gu ndaw gi daal saa boo ko gisee xamal ne gaynde gu mag gee nag moo ko meññi sëriñ Abdoulaye Xadi nag boo ko gisee da ngay ne daal ku dund nag lu baree baree bari la ay atam nag yu mu dund nag bariwul saa boo déggee nag ay jalooreem da ngay foog ne daal ba nëgëni nag doomu sëriñ Moor Juuf Jati bi nag mi ngi fii wayu yaatoo yaatu daal la ko sëtam defal nag di sëriñ Koso Juuf ci kàllaamay arab di ñu wax nag jaar jaar jaaru maamam jii ak taxawaayu maamam jii ñu teewlu nag li ñu ci sëñ Koso Diouf nag defal ci di ñu wax nag kan mooy maamam sëriñ Abdoulaye Diouf Khady السؤدد ما الصرف هذا سوى سن عبد الله قد شبيه والده في الخلق والقلق يقص آثاره في البهج والنكد تصل المحبة مح بيمومة الخدم جم الهدايا لأهل الود واللدد ما شاء إلا بما قد شاب من قيم بل في سباه تخلى عن لغو ودد وفي سباه تحلى بالقسال ثقيل لداكم السبل بخ من ذلك الأسد ما عاش عمرا طويلا بالأيام الأيام ولكن مد عمر له بالخير والسدد ومن سجاياه تقوى الله قالقنا والصمت عن كل ما في الدهر لم يفد فذو حياء وحلم موضع الثقة عند المسائق تمساس أخو جلد أخو المروءة الجيد نحيزته دماثة الخلق أواب إلى الأحد فتى يفوق قدما في سماحته ضاحة أخياس كل الحلم بالسفر فتى يهيج بسيق القوم قاطبة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 màggal bis bii mu génnoon àdduna nag di ñaar fukki fan ak juróom ñaar nag ci weeru gàmmu bis boobu itam nag la ak njabootam jàpp di ko ci fàttaliku ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci quartier bi itam nag di Aliya màggal gi nag ci atum 2010 nag lañ ko jàpp nag ba nëgëni di ko ci fàttaliku ci bis bii ñu ko mujjee gis nag di ñaar fukki fan juróom ñaar nag ci weeru gàmmu ab xalifaam itam nag moo sos màggal gi di sëriñ Cheikh Awa Balla Diouf ànd koog soxna Faati Mbàkke ndaamal daaru na ngir mu tarbiya fa te sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke gërëm ci atum 1947 yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay waajuram na sëriñ Mor Diouf Jati amiin sëriñ Mor Diouf Jati amiin